waaw dégg nga dégg borom borom Almoña borom ka borom Almoña waxal loo ci kaw di malo eh, yàlla baaxal naa non añ bi añ bi la njokk añ bi barki alxuraan par billaay soo ko envoyé damay kii. non amul soo ko envoyé parce que envoyé naa ko mu ngi nii kay. 77. bul juum de soixante-dix-huit. waaw soixante-dix-huit waaw noonu la. soixante-dix-sept nga xam ne taxawal Bamba. soixante-dix-sept zéro onze vingt soixante-dix-sept wala soixante-dix-sept zéro onze vingt soixante-dix-sept waaw nii la. boo woo ci Ama Dia bu mag bu rek mu téye ko rek. yow mënoo jox ñu envoyé ma ko ngeen. sa waay nag demal sa yoon nag yow boo gisee xaalis rek. bu ko yow man góor yi. waaye li amul. léegi da ngay war. Fall Fall yàlla yàlla fay. dinaa toog añ ci bël la yónnee la. jëli lii ah. Bamba bu ma bëree ba pare. muy jàmbur jàmbur bu mag bi nag. ba mu dee def social ah. yàlla. day ñëw moo nekk parking ba waa parking ñi la doon woo démb la. ci waa parti Mbala. incha allah. ak baax soo daanee nga ñëw sama bureau dégg amul benn problème.